Cheikh Ndiaye maa ngi lay nuyu. maa ngi Cheikh Ndiaye nga nekk analyste politique euh, déjà ban jàngat nga am ci tendance yi nga xam ni moo jot wàcc ci élection législative yu 17 novembre 2024 daal di jox bopp euh, parti euh, Pastef les patriotes ban jàngat nga si am pour yow lan la Pastef def ba am résultat yu mel nii. élection yi jot a am démb dafa di confirmation tendance yi jóge woon ci présidentielle bi nga xam ne Sénégal dafa élire pour la première fois opposition dès le premier tour donc tendance yi jot a démb dès les premières tendances comprendre ni kon dafa am benn confirmation bu nekk am par rapport à ce changement de paradigme léegi nag changement de paradigme boobu ni ñu ko mënee comprendre mooy Sénégal depuis du neuf cent soixante ba ba si ba dafa confronté wu à ci ay régime yu yu bëri régime socialiste régime libéral si nga xam ne moo nekk fii tey donc pour wane ni rek Sénégal dëkk la boo xam ne démocratie la te démocratie boo xam ne toujours parlement bi aussi dafa daan incarné te parlement bi dem ci parti au pouvoir am doole te loolu lañ gis mu confirmé wu mais bii li ci xaw a doy mooy seul parti Pastef lañ gis pratiquement mu nangu moom adossé wu moom donc dem ci ay élection génnee ci donc ñooñu avoisiné vers les cent trente à cent quarante députés ba cent cinquante am na ñu koy wax selon les statisticiens donc pour na ni dafa am benn changement de paradigme bu nekk di am dafa am une nouvelle génération boo xam ne moo nekk di dugg ci politique di jël nguur gi te loolu tam ni ñu ko mën a analyser mooy il faut que ñu comprendre que Sénégal dafa di réew moo xam ne dafa soxla développement dafa soxla jeunesse am accompagner njiit yi fi toog pour réew mi mën a changer te jeunesse boobu il faut ñu saxal ci wàllum formation ci wàllum yeneen aspect léegi nag euh, ba tey ci wàllum changement politique boobu gis nañ ni kon bi dafa am yenn parti yenn groupement yu mel ni sàmm sa kàddu te sàmm sa kàddu ñoo ngi leen doon xaar xëy na ci déroulement programmatique maanaam waxtaanee programme mais dañoo seetlu woon seen campagne au lieu ñu wax ci programme yi ñu ficelé ak yi ñu préparé peut-être pour doon wax pratiquement ci wàllum xuloo xeex ak yooyu te boo demee ci candidat bu mel ni par exemple Maguette Sène ak àndu nawle da nga daan gis dafa am moom programme bu leer boo xam ne il parle de terroir nga dem ci yeneen candidat yoo xam ne peut-être siiwuñu noonu mais amoon nañ programme donc loolu wane ni dafa am changement politique bu régime bu bees bi di incarné changement politique boobu il faut yeneen acteurs politiques yi ñoom it ñu accompagner changement politique boobu indi proposition yu bees mais pas nekk ci xastante beeg saagante bi ndax benn réew kanam parce que l'homme sénégalais sénégalais biy tànn jamono ji dañ ko yóbbu ci beneen sphère maanaam sénégalais bi dafa dem ba xam ni ki koy wax ak moom di ko wax dëgg di ko wax lu mën a nekk di ko wax ci wàllum programme di ko wax ci wàllum développement kooku la mën a déglu mais pas ki nga xam ne waxu kulu xastante la koy wax ak ñi nga xam ne peut-être ñooy toog mooy ñu may woowee ñi ñi xam lépp maanaam les tutologues ñooy toog ci peut-être ay plateau foog ni manipulation yi ñu daan def ak ancien régime que nekk ci réew moo xam ne il faut ñu waxante dëgg bañ a xool kii fu mu faat wala kële fu mu faat mais ñu bàyyi yenn yi nga xam ne ñu ko doon def ñu ko doon gis ci yenn domaines yi te yoo xam ne nekkul woon luy accompagner changement bi a am Sénégal te tant que nag homme politique yi nekk ci opposition bi conformé wuñu par rapport à ce changement là dañu nar a tardel set boobu parce que sénégalais bi tànn xam na li mu bëgg mooy li may faral di wax rek sénégalais bi ngeen di gis muy dox ko jàppee dof yaa ngi nax sa bopp parce que moom xam na li gis ngeen campagne bi ñu gis ngeen parti Pastef campagne bi mu ne par rapport à sa vision Sénégal 2050 lépp lu mu mës a wax ci wàllum programme lañ ko tegoon bu ñëwee ci benn pôle dañ naan pôle bi lii lañ ci war a def ndax pôle bi bay moo fi am lii moo fi am dinañ ko fi def te loolu même bu dee ay promesse maanaam wax nañ daal programme te loolu gis nañ yeneen candidat nekkoon ci loolu ku ci mel ni Amadou Ba jàmm ak njëriñ ci mel ni tamit euh, vraiment Maguette Sène te loolu il faut tamit nouvelle génération bi di ñëw xam ne dafa am changement de bu fi am maanaam ñoom ndaw ñi ñoom nar a nekk ci classe politique bi te il faut ñu bàyyi violence bi bàyyi waxtu saagante bi xuloo bi ñëw ci waxtaan woo xam ne waxtaanu dëgg la waxtaanu bu jëmale réew mi kanam tant que defuñu ko nag bon xëy na bu ñu comprendre toujours choix wu Sénégalais mais Sénégalais ils savent très bien c'est pourquoi ils ont accompagné peut-être bi nga xam ne moom la parti Pastef am depuis élection présidentielle bi ba tey jii aussi euh, xam nga ni Pastef kon bu fekkee am na majorité absolue comme niñ koy waxee wala confortable wala écrasante xel yëpp dafay dem ci fiñ ñu toll nii kan nag moo war jiite assemblée nationale kan mooy wutu Amadou Mame Diop ca chaise ba ñu bari seen xel dem ci euh, président bu Pastef euh, les patriotes di Ousmane Sonko tey jii yow ban puisse vraiment pour mu diriger Assemblée nationale. waaw bon comme que Ousmane Sonko mooy tête de liste parti Pastef am nañu yaakaar ni moom moo nar a nekk président assemblée nationale mais xëy na am na jeu politique bu mën a am ci biir boo xam ne diggante président de la République ak euh, la tête de liste Pastef dinañ waxtaan ñu xool yan arrangement la ñuy trouver pour bon soit Ousmane Sonko ñu confirmé waat en tant que premier ministre wala ñu bàyyi ko mu dem jiite ji assemblée nationale mais en tout cas c'est un jeu euh, seen biir la. c'est un jeu démocratique la à leur parce que parce que ñëpp xam nañ ni dafa am lu muy doxee mais ni ci suñuy analyse ak suñuy xam-xam bu gàtt yaakaar nañ ni moom moo nar a lii di euh, pouvoir législatif bi que Sénégal ni ma ko tàmm di waxee trois pouvoirs yi exécutif ak judiciaire première personnalité de l'État mooy président de la République deuxième personnalité de l'État mooy président de l'Assemblée nationale donc noonu la ko suñu appellage constitutionnel defee mu tax ñu yaakaar ni te Sonko moo nar a incarné lii vraiment Assemblée nationale bu pare loolu xëy na dina mën a permettre ñu faciliter projet de loi yi nga xam ne moo nar a jógee au sein de l'exécutif ñu mën ko dérouler au sein de l'Assemblée nationale moo tax ñu am yaakaar ni moom moo nar a ci jafe-jafe yi nga xam ni réew Sénégal mi ngi koy jànkonteel actuellement surtout ci wàllum koom-koom euh, pour yow sénégalais yi ban xeetu assemblée la ñu soxla euh, ban taxawaay lafa fa député yi war a amal muy député euh, de la majorité Pastef muy côté opposition bi lan moo war nekk tey jii seen taxawaay ak situation bi mhm. assemblée wu benn nit la fi daan nekkal lu mel ni sax député taxaw ni man président lu mu indi ma voté mu jàll du ma sax liir du ma sax gistu du ma sax caytu te sénégalais bi dafa soxla nag député bu koy caytul di ko gëstul di ko alerté ni ah am na projet bu dugg waaye gis nañ ni lii at lii baaxul ci réew mi sénégalais yi député bu mel noonu la ñuy xaar député boo xam ne mel nga ni comme Guy Marius parce que ñëpp gisoon nañ taxawaayam assemblée lettres yi mu daan bind au niveau des ministères déclaration yi mu daan kon euh, le premier ministre donc pour wane ni rek sénégalais l'homme sénégalais ci l'électeur sénégalais il est assez intelligent bu xam choix am ci kan la koy porté ak xam tamit ban genre député lay xaar ndax Sénégal xam nañ ni jamono ji dafa nekk ci zone de turbulence ndax tous les signaux sont pratiquement au rouge parce que gis nañ euh, bilan bi euh, premier ministre defoon concernant ancien régime yor bi mu yoroon réew mi ak endettement bi nga xam ne moo sonal Sénégal service de la dette loolu yëpp euh, bilan yi def nañ ko teg donc jamono ji député yi ñuy xaar mooy député yoo xam ne dañuy représentatif maanaam défendre cause nationale défendre li nga xam ne moo fi mën a permettre Sénégal génn ci sous-développement bi mu nekk teg ay proposition de loi yo xam ne day jóge ci député yi proposition yoo xam ne sur le plan économique sur le plan environnemental et sur d'autres domaines parce que Sénégal ñëpp xam nañ ne pétrole ba ak gaz bi dugg si na donc yooyu dafa nekk ay manne financière donc maanaam slogan jub jubal jubanti bi ñuy woote c'est le moment ñu appliqué ko bañ a nekk ay député man maay député Diomaye maay député Sonko maay député Barthélémy wala man maay député Amadou Ba dañ nekk ay député yoo xam ne député de rupture lañ naa ne buñ gisee ni exécutif dugal na projet boo xam ne xëy na arrangé wul askan wi ñu taxaw ci waxtaan ci xool nan lañ ciy trouver solution donc genre assemblée bu mel noonu la Sénégalais di xaar mais pas assemblée boo xam ne daf ñëw nekkal un clan wala une famille wala un comme li fi daan jot a xew yaakaar naa ne changement de paradigme bi ma doon wax ci njëlbeen moo moo war a feeñ ci assemblée bu bees bi ñu naral Mhm. Euh, tey jii avenir opposition bi na ko gisee euh, mu mel ni euh, Sonko da leen a boole ñoom ñëpp daal di leen yóbbu retraite bu fekkee mën nañ ko waxee noonu tooñ tuuti en tout cas tey jii lan mooy avenir opposition parce que gisuñ fi président Sall nekkoon tête de liste takk wàllu gisuñ fi ki nga xam ne moom mooy Karim may sawaat ak yeneen leader tey jii lan moo nekk seen avenir est-ce que am nañ avenir wala dañu war xaar beneen. génération boo xam ni bu bees la pour mën fi jëlee peut-être euh, Pastef wala Ousmane Sonko. waaw opposition bi am na avenir maanaam avenir am nan la ko mën a symboliser mooy maanaam bu méngoo ak li xew ci jamono parce que jamono dafa changé Sénégal dafa am génération yu bees yoo xam ne mooy voté am génération boo xam ne mooy incarné politique Sénégal te loolu pour opposition bi comprendre loolu il faut ñu yéeg yeneen étape parce que ñoom dañu nekk ci étape boo xam ne dañ jàpp ne xëy na saagante ak kafsante moo leen mën a permettre ñu am les masses alors que les masses ils sont assez intelligents pour def seen choix léegi nag dafa am tamit man lu may wax ñi euh, may woowee la vieille garde maanaam les partis politiques traditionnels yi fi nekkoon PS PDS AFP c'est les grands perdants parce que pratiquement gisatoo leen gisoo leen ci élection législative bi maanaam dañu di parti yoo xam ne xëy na il faut ñu xoolaat seen biir nan la ñu mën a waatee seen vraiment cahier de nan la ñu mën a defaraatee seen pour méngoo ak jamono parce que jamono ji parti yi dañoo war a démocratique dañoo war a mën a discussion yi mën a am waxtaan yi mën a am changement yi mën a am seen biir bu ñu jëlee exemple bu mel ni parti démocratique sénégalais il faut mu jéem a renouveler wu pour permettre vraiment à ce que une nouvelle génération puisse tenir euh, vraiment euh, les chaînes c'est la c'est le même cas socialiste parce que dafa di parti boo xam ne pratiquement kenn gisatu ko kenn mu nekk dëgg la mu ngi mën ñooñu tamit ñu comprendre que ni il faut ñu dem vers un changement de paradigme bu ñu ko deful rek dañu nar a vraiment plonger encore dans le noir te loolu yaakaar naa ne di leen arranger moo tax il faut ñu xam ni jamono ji comme ni ma koy waxee rek dafa am page bu noppi di dëpp am page bu bees di ubbeeku. Mhm. il faut nit ñi ak acteurs politiques yi ñu jéem a conformer à cela. voilà merci Cheikh Ndiaye en tout cas ñu ngi lay remercier bu baax a baax ci sa disponibilité. merci maa ngi fàttali